waaw de maa siyaar ñëpp siyaar yàlla bu ñu moom ñu ñëpp sëñ mën a kora borom daaru ak samay waajur samay xarit yëpp mënu ñëw nuyante nag bu bëri waaye nuyu naa ñëpp ci àdduna surtout nag ñu ma doon àndal làmb waaye su ma waa kër moom ne ndax ñoom sama lépp la ñu lépp wàccuwaay gi sama mag bu góor Ibrahima Zogay siyaar naa ko sama xarit bu baax ci man sama mag bu góor di siyaar sama yaay di ñaanal sama babu nag yàlla yërëm ko fu mu nekk ñu ko fekk ak ñu fekk yëpp daama salaam. sëñ mënu ko rabaroon Ndaaru. ok Papis sama gis uh, mbëri bu ñu préparé combat. waaw ba ñëw bi ci face à face yi des fois dañu jël gàllaay di ko xëppante seen biir est-ce loolu am na dafa am lu muy yàq ci combat bi. waaw nag koo ku ne nag ak li na di kala xam la ku ne ak li na waaye bu dee man sama xelu bopp jaruñu histoire ci signature ndax signature bu làmb làmb sur le terrain la waaye làmb nag guddi lay jeexee waaye du jeexee guddi lay jeex waaye du jeexee stade stade jëkkali la ci ñi xam ak mag yi xam mag wala doomu aadama mu xam làmb moo lay dëggal loolu làmb du jeexe stade foofu jëkkali la dañuy jëkkali waaye guddi la làmb di jeex làmb dañ ko jeexalee ba pare bu gën a amee stade dañ bu ni may saam ñu soog a jekkali. ñu soog a jekkali. waaw mais guddi lañ koy jeexal. waaw oh. waaw léegi Reug Reug ak Sa Thiès instant bi nu gisee seen ay de forme defee seen open presse ba pare. leen jox cinquante cinquante ku nekk jox naa cinquante cinquante kenn ma ci xaalis ku nekk cinquante ñi may jox xaalis ñoom may jox xaalis. bu dul ay mbër sax macha allah waaye nag ñoom ñaar ku ne cinquante cinquante laa lay jox laaj ma la leen. cinquante cinquante côté côté forme wala côté mystique. côté forme côté mystique mënu ma koo wax. côté mystique kan moo jekku ah? bi. kan moo jekku. côté mystique. waaw. ndax kan moo jekku sa morom côté mystique. waaw ci li te bu ñëwee stade soo ma woon ne ma woon a soo ma. woon ma woon a diw. waaye xam nga la xalaat côté mystique. ah waaw. ñu gën a xam Talla Sathiès. ñu gën a ma xabtal ko. xabtal. maa koy wax de. xabtal mooy lan Sa Thiès nu muy bëree combat gi war a bëree. ni mu mel ci làmb. du làmb yëpp ngay mel noonu ci mbër seen mag la dàq ñu ma bëre bu dee làmb mënuñ ma bu wërsëg dëgg la waaye aaduna mënuñ ma ci wërsëg waaye làmb mën naa nangu loolu waaye côté. làmb bu dee dëggal ak coach Sa Thiès warul ñoom ñoom bëree bu njëkk bëri koog rek rek man ah man bu Papis Général nan la mais bu fekkee loolu mooy mëninam ba ñëpp xam ne amateur yëpp xam ne loolu mooy mëninam bu ko bàyyee est-ce que du ko indil problème Sa Thiès mën na lépp ci làmb loolu du mën mu sàcc kese de fit moo ko koy def loolu ndax bu mu jàkkaar fu ne moo la mën te dëgg la booy dem examen da nga naan damay am mhm. noonu lay bëriwee damaa war a dem daan kii dem sama yoon mhm. Sa Thiès noonu lay bëree mhm. kenn waru ci koo mere. waaye nag combat bi lu mu laaj. dal. Ah, mais ñu ne bu dalee loolu moo arrangé Reug Reug. Sa loolu moo arrangé Reug Reug ko def ak ñaari phénomène kii dafa mu ne côté bi kii mu ne côté bi gis nga rajo Reug mbaa xam nga ne yàlla. nit mën naa la daan te dàqu ba de. nit mën na laa daan te dàqu la nit mën na laa daan te yàqu dàq bëre bokkul ci làmb de ñoom ñaar sàcc sa tey bu teewul neexuma rëg-rëg nag dafa assuré day damiyee amul luy damiyee da ngay calculer ba pare soo ko pousse pion dafa poussé pion ba dee kii dama pousse pour am deux wala benn. waaw Reug Reug bu poussé pour trois lay amee. waaw mais li dama gis des fois ñun naa ñu xëccoo mbëri des fois suñu amee combat ci stade arène nationale dañu xëccoo fi ñu war a teg seen cumukaay est ce que combat bi cumukaay fi nga teg sa cumukaay daf ci am importance. loolu dafa garaaw ci làmb loolooy rawaan mbaam la rawaan fu mu nekk ci làmb mbëri ko xam nag xanaa ancien yi. waaw wala mbëri yu dugg ci ancien la am ay mag yooyu loolooy rawan ci làmb rawan ci làmb kenn mu sa sa ji mënu faa daanu boo demaatee làmb ak supporter bu may déglu nag ak commentaire commentaire du sama live commentaire ci làmb la ñuy wax dañ commentaire làmb bàyyi sama commentaire live man la li may wax dina am wala du am commentaire leen loolu waaye sama dund te mënu koo commentaire franchement parler parce que man na ne ma koy dund li tax ma koy dund kenn xamu ko sama waa kër xam nañu waaye ñeneen xamuñu kon nañu yem foofu rek nañ ko bàyyi ci làmb rawaan dafa am ci làmb. dafa ci làmb. rawaan. du ko ci làmb. nga xool mbir fu ñu daanoo jóg gis nga fu rawoon ne. waaw mbir mosu faa ci àdduna. antanu ko lu tax ko xëccoo. rawaan la. rawaan la xam nga rawaan bu ma ne ci benn secret bu ndaw. Mm-hmm. ñaar am ci rawaan. ci li ma xam ko ma keneen. nga ñëw jël suuf. Mm-hmm. fees ko ni mm-hmm. suuf yi jëm ni ni nga war a toog sa jumukaay. Ah, waaye ngelaw gi waroon ñëw ci kaw. deuxième fois nar buy boof. ku ma jàkkaarloo fa ngay jàkkaarloo mooy rawaan ñi xam xam nañu dinañu wax ci commentaire yi lamp la ñuy wax tëdd yàlla nañ maye mm-hmm. waa léegi nag gars yi invité gars yi ñu dem télé ay paa yu ma mag téeméeri junni yoon ñu mag sama waa kër yëpp nañ jud ñu ñu dunu àdduna ak xam-xam ñu xool man bëggoon wax sax waaye li ma xam sëriñ waxal ñu dem léegi yow lamb ji euh, sud bi ban genre sud nga gis nga na nga gis ne bi noonu lay noonu lay amee chute bu leer la doon wala genre chute boo xam ne leerul wala wala chute yoo xamante ne par arbitre décision arbitre. chute bi day leer de chute bi. waaw ah. day leer de gis nga wetu wetu nii. waaw mooy war noom rek. waaw xam nga ni bu war a noom di nga am gauche ngay dem wala droite pour parce que ku ne am na foo mu nee dina am ci laamu nii wetu wetu comme waru ndomb waru ndomb ba pare dem gauche wala droite dina am ci làmb ji bu ma kenn gëm bul ma kenn gëm nag ba làmb ji jeex ñu doon nag wax lu maa ko wax kenn waxoon ma ko maa ko wax. léegi fu ñu jeexalee fan la lan la lan la Reug Reug ak Sa ku ci nekk lan la war a xañ moromam ci biir combat bi jàppante bi. non ñoom ñaar dañoo mën a jàppante Sa daa mën a jàpp Reug Reug daa mën a jàpp benn affaire kese laa lay wax Reug Reug non Sa Thiès tey. ba teewul neexuma waxaat naa la ko waxaat naa la ko na tey xool rek. waaw la ngay tuddee tey yow si combat bi. ah la ngay woowee tey bi. tey bi mooy lan nan ngay tuddee tey saa na tey tey bi mooy lan ci yow. ah tey mooy lan ñëw dëddu rek rek wala. cofara cofara gi. non non kenn ko defee rek ndax ëpp ko doole. léegi nag ëpp saa doole. waaye ku la jëkk ëpp la doole. parce que doole dafa am doomu aadama. fii amul doole ci nit. ndigg amul doole ci nit waaye mun na ci nax nit ndax boo jàngee karaté ay judo ay greco mun na ciy nax nit fii amul doolu ci nit fii amul doole ci doomu aadama am na foofu jekk sa moroom waaye tey bi mooy na xool maam na Sa Thiès yàlla nag mooy maye ku baax ku yaru Reug nag ay doomam ay xaritam yëpp seen ay xaritam yi waaye Sa Thiès baa la gée rek sama nit la Sa defaroon naa sama bis ñu waxtaan dinaa mu ñu mën a ko sa doole bi waaye ngir yàlla def ndànk ci làmb bi bu bu mu bi prix ba ñëw bu defee rek ma xam ne da koo tey amul droit bu ko defee ñàkk combat bi bëgguma woon wax de te naa wax de te yaa may waroo xaadim wax a tey daal. bëgguma loolu Sa Thiès bëgguma loolu ci moom solo amul fakastalu ak Gris Bordeaux benn la amul. warandoo ma dina am ci combat bi te ba kenn gëmmul combat bi jeex dimanche bi nii suba gannaaw suba rek mooy combat gi ah ñu xool waaye nag bu ñu paree ci combat chaque jour su ma woowee combat loolu am force ñaata nga ma intérêt ci combat. Sénégal ñu fay ko ay cent millions. lu mu ne dañ saa kees bu mu fërë cëfër cëfër na bàyyi na tey xool rek saa kees boo xam ne combat bi waru cee daanu. waru cee daanu ah, daanu. xanaa fils de Balla. waaw ak Lac de Guiers. ak Lac de Guiers. waaw kooku moo gën a nakari làmb ci àdduna moo gën a nakari làmb ci àdduna. waaw yaa ngi tooñ Lac de Guiers de. ah yaa ngi tooñ Lac de Guiers de. xam na xam na sama xam na xam na moo gën a nakari làmb Sénégal bu mu daj Lac de Guiers. saa kees waaw mais dafa naqaree daal daal naqaree bëreel de. ak sëñ Mor ko Sénégal moom dëkk dëkk da naqaree bëreel. Lac de Guiers deux waaye saa kees na def nag. billaay na def nag. mais dama gis wax ji wax ji yëpp ci Sa Thiès ngay ngay ngay wax lu tax côté Reug Reug wala foofu sa wax bëriwul. déedéet dafa am façon de faire xam nga boo yoree ñu ñëw seen xel yor ak tubaab seen xel ñaari xel yooyu buñ la jëwee ñaata lay doon kon da ngay def nànk rek yàlla ko voilà dem koo ñaan mu def nànk ci combat gi bu defoon nànk du ko neex de maa ko wan bu ko kenn gëm ñaanaloon ko nag defet ndax boo daa bañ a defet géej waay day métti waaw. te nit da nga am yërmande si doomu aadama te pourtant seen du école. man am kaawoo man lamb ci. ah bu dee lu ma gis man bu amee kawoo dina ma def lool te nag yàlla la yàlla kese moo mot ci àdduna ñu ngi lay professeur Diop yàlla waaye am na lu mu waaye góob ma kawoo de bu amee tamit nga xam ne yàlla bi ñu moom may lu mu rek moo ko rek moo bañ ñoo woon lii. waaye bu dee li yàlla woon ne ci ñu mu may nee naa la woon doomu wetu mun naa am xam nga ni mën na ko woon doomu nag bu ko jugé boo waree doomu da ngay jaar gauche wala droite mm-hmm. fu nga mënee da ngay dem pour mën a daaneel dina bu dee tamit ci lañ daanu woo ci kaw ci suuf ak waroon am lii takk takk nii ndigg dina am ci làmb ji ceinture ndigg dina waaw gulon seen voilà ceinture ceinture ndigg na am ci combat bi loolu laa bëggoon wax ceinture ndigg na am ci lamb ji ci am waaye nag bu yàggee ku nekk da naa yem teeyal teeyal parce que ñun ñaar bokk yem de ñaari dof la de cinquante cinquante laa leen may de waaye bilaay Sa Thiès bu defee comme ni muy bëri nii avec preuve bu ñëw sa kaw bugguma loolu ci moom. comme ni mu bëree ak ni mu bëree kii. ko ci moom. bu ko defee rek rek dootu ko waxati te mu bàyyi loolu dafa am lamb yoo xam ne ni nga war a joué du lamb yëpp ngay def loolu day déet ku mun a bëri dëgg dëgg dëgg kii nii laa war a bëri moom kii nii laa war bëri ak moom kii dinaa bëri parce que koy ak ni koy bëree. combat bu ne tamit ah mooy combat bu ne ak ko war a bëree waaw li ci diw dafa nekk ci diw lu ci kee dafa nekk ci kee a ah, kii mën naa ko siif kii mën naa ko siif. bu doon siif yi mu arrangé ci làmb yëpp mënul nekk kii mun naa ko siif kii mun naa ko siif waaye kii damay ñëw meli sa dama koo ragal bu nee nii ma arrière pour nax ko ana Boy Niang ana Modou Lo ah te pour daa daa ko ñu changé mbir de waaye nag tey ñu ngi am. macha allah ba am na solo tàggoo. lu may tàggoo chaque jour rek ñaanal ñëpp jàmm. Hmm. sëriñ yëpp ndax ñaanal leen jàmm. Hmm. jaam ak salaam adduna bi jàmm. di nuyu sama waa Kaolack Sénégal ak bitim réew sama ñu may àndal. lamb ji nag ñaari camp yëpp ku nekk am ci jàmm ju bari ñoom ak jàmm ak salaam. ak taw feex waaye Sa Thiès boobu forcé lamb ji.